daje bi li ko waral mooy euh, comité supporter bu AS Pikine moom jugee nécessaire ne ko war a jàppale club am yàgg na koo jàppale mais daf cee rawati ci période bii ñu nekk muy période pandémie nga xam ni match yi si à huis clos mu métti si ñëpp nag mais rawatina tamit ci AS ma nga xam ni daaw si set match yi nga xam ni moom lañ joué à domicile am nañ ci dix huit millions plus de million huit millions de recettes. kon dëgg la na te jàpp ma ni am na yeneen club yoo xam ne mën nañ lii AS Pikine mën ndax ñun suñu match yëpp xam nañu c'est à guichet fermé presque mu metti trop léegi nag ñu ne woon nag ñun war nañ saytu yan moyen la ñu war a fexe ba ñun ñun ñu mën a jàppale équipe bi ci période bu bu difficile bi ci loolu nag lañu mis mettre en place benn plateforme bu tudd Kopar Express boo xam ne képp kuy Pikinois foo mun munti nekk di nga ci mën a dugg nga participer joxe sa sa participation ci ci ci équipe bi mu nekk benn plateforme boo xam ne bu transparent la ndax boo mën nga cee dugg gis ni participer nga si ci ci participer rek dañ ko xam te li mu si joxe tam si somme dañ ko xam dañoo bëgg chaque quinzaine ñu jàppee ko noonu ba keroog ñuy tujjaan beneen appel bi tamit bi ñuy lancé mooy ñu lancé ko le président de la république lancé ko le ministre des sports mooy ñu permettre peut-être. mu am cent cinq cent supporters ci ci ci stade yi ndax bu ñu amee cinq cent supporters ça nous permettra nag loolu fa jëlee équipe yi mën si di dépenser ndax fii Sénégal xam nañu équipe bi dafa xaw a métti amoo sponsor ci amul rentrée d'argent ci béykat ndax wi ko la ñuy def kon si subvention rek ngay ngay ngay ngay yaakaar muy métti trop léegi nag loolu nag bu ñu ko permettre da permettre tamit ñu jël suñuy disposition jël suñuy mesures barrières yooyu yëpp respecté ko. ba ñëpp ba feebar bi lépp lu ñu ciy séntu ci ñun mu bañ a jógee ci ci ci football bi te loolu ñu ngi koy ñaan président di ko ñaan le ministère de sports pour permettre Euh, stade yi peut-être même bu nekkee cent personnes sax ñu def ko tout en respectant les mesures barrières. waaw ambition lay ñëwee euh, pour jouer les premiers rôles moom képp comme ni ñu ko waxee rek ñun moom duñu équipe boo xam day jouer les second rôle ndax suñu tolluwaay moo moo demee noonu AS Pikine équipe bu mag la ci ville bu mag la nekk. à chaque fois supporters yu exigeant la ñor dañuy bëgg tout le temps ñuy am ay trophée ren bëgg nañu au moins ñu jël benn championnat wala benn coupe du Sénégal bu nekkee mën na nekk pour que supporters yi tamit gën a mën a gis seen bopp ci ci équipe bi te loolu mooy ambition équipe bi loolooy ambition supporters yi te lépp lu ci war dañ ko si liggéey ba loolu ñu atteindre ambition yooyu incha allah. Euh, na am waaw non am na ay recrutement yu ñu def. am nañ ay recrutement yu def am na ay joueurs yu ñu bëri ndax boo gisee daaw li ñu bàyyi si joueur ëpp na 15 joueurs li ñu recruter tamit ëpp na mat na 17 joueurs te loolu day wane ni ambition yi ñu am ci ci kii te nekkul n'importe quel joueur ay joueurs yu mag lañ jël championnat bi te jàpp nañ ni noonu li ñu leen si li ñu siy séntu jàpp nañ dañ ko si am ci kàttan yàlla. waaw mais euh, comme comme ni ñu ko xamee ah, actuellement dañu nekk di vivre situation boo xam ne c'est un peu ko quoi avec la pandémie donc. Euh, en tant que supporter de en tant que doomu Pékin, nous avons jugé nécessaire d'apporter notre contribution apporter notre contribution si ban moyen la war a mën a jaaree parce que mënuñu di déplacer wu di ñëw di joxe suñu xaalis donc nous avons jugé nécessaire à travers la plateforme Copper Express ñu tijji fa benn organiser fa benn collecte boo xamante ne collecte bi day di par quinzaine lañ koy def bu ñu koy defee donc euh, dañuy permettre chaque quinzaine ñu regrouper li nga xamante ne moom lañ moom la billetterie bi doon apporter def la tout ba regroupé ko foofu noonu à travers ay cotisations yi ñuy def par rapport ak euh, xaalis bi ñu doon jël di ko daggee billet mu dugal ko foofu noonu de ce fait chaque quinzaine dañ koy regroupé bi war a recevoir fii nii ñu jël ko dajale ko dañu fixé barre 2 millions 500 parce que billetterie bi da doon dugal ëpp loolu sax da doon dugal ëpp loolu ñun ñoo ko limité foofu noonu rek pour comme comme c'est une première et c'est un exemple boo xamante ne AS Pikine ko joxe AS Pikine bëgg na à travers lii nii ñu créé yeneen yeneen yeneen équipe yi aussi tamit mun di mun di si jàppandiku mu leen alésel tas bi ko xoola dama dégg di wax ni plateforme bi am na ñu ko bloqué waaw mais mooy mooy ñuy wax rek at comme euh, une œuvre humaine n'est jamais parfaite une œuvre humaine n'est jamais parfaite plateforme bi bi ñu koy door a créé bon euh, carte visa yi da si doon dox yëpp mais da à un moment donné dafa dem ba dafa am problème mais Euh, je me suis rendu compte ce matin am na ko dugal am na ko dugalee via via via noonu donc ñun woowoon nañ leen signaler leen ko. xamal leen hmm? waa Kopar Express. ñoom ñoo ñoom ñoo ko gérer quoi ñun collectif bi lañ lañ lañu tëj organiser ko foofu rek mais euh, woo nañ leen def def nañ def nañ suggestion bi pour permettre leen ñoom ñu nga ñu mën a veiller si li nga xam ne loolu mais. Euh, ce matin je me suis am na ku jaaree par par par par Mastercard du dugal donc ce qui veut dire que ne ñoom ñu nga am ay amélioration par rapport ak ça quoi mais en terme de sécurité plateforme bu am sécurité la en terme de visibilité do aussi tamit plateforme bu am visibilité parce que même ki nga xamante ne nekkul administrateur plateforme bi sax bu duggee dina xam ne cotisation bi lii la diw moo cotiser lii diw joxe na lii somme bi fii la toll objectif bi lii lii moo des pour ñu atteindre ko kon donc loolu noonu loo xamante ne lu transparent la lu lu visible la par rapport ak tout tout le monde parce que en terme de collecte d' moom c' est compliqué quoi bu lu lu leerul su bëtu nit ñi ko kii kon donc ñuy lancer un appel euh, au Pikinois di leen wax ne. Euh, Euh, képp kuy doomu dëkk bi wala képp koo xamante ne mës nga yeewoo Pikine nga ñëw jàpp si lii nga xamante ne dañ ko initier mu nekk benn exemple boo xamante ne dañ koy def pour tous les autres clubs comme ni ñu ko waxee rek parrainage bi Pikine moo ko initier woon mu am réussite euh, plateforme bi aussi tamit ñun ñu ko initier bëgg nañ mu am réussite bi nga xamante ne dafa wees suñu jot parce que euh, du dañ buñ buñ ñee jàppale Pikine bu ñuy jàppale Pikine aussi tamit dañuy jàppale le foot local aussi tamit quoi à ah actuellement euh, en fait euh, apport financier bi ma la rek moom ñun dañ jéem a fexe ba tout ba mettre leen dans de très bonnes conditions parce que nit ki boo koy laaj résultat au moins war nga ko mettre ci condition yi nga xamante ne conditions yu idoine lay doon yoo xamante ne du du am benn benn benn jafe-jafe donc kooku noonu boo mettre si condition yooyu mun nga ko mun nga ko forcer mu andi le résultat bu positif mais tant loolu matewul munoo insister pour kenn def leen ñu leen di souhaiter une bonne chance si match bi nga xam ne si lañ jëm di di woo di lancer appel à tous les ñu boole xol yi ñaanal équipe bi ba li nga xam lépp loo xamante ne sumb nañ ko ñu daanandoo ko ko